Amadou Ba biñ ne guerre des bi Amadou Ba ne am na 3 millions Mimi Touré na ko amoo ko euh, ñële di tàccoo ko feccu yàqamtu ñoo génn ñoom ñëpp nag ne am naa lii am naa lii loolu ban importance la ak aussi euh, soxna si Amadou Ba bi ni mu euh, jële yëf yi à bras te dëgg-dëgg du muy lu bees loo xam ne

fii nii moom defe naa ne ku mu neex dugg kër Mbengue fii nu mu la neexee sans audience sans rien du tout kër ga fi ñu toll nee na yàmbalang ndax ñëpp déserté nañ ko xam naa dafa am jinne bu leen dee ne Amadou Ba mooy mooy mooy ndax mu loolu sax dañ koy wooyee te loolu sax man dafa ma jaaxal ci réew mi ñu nekk nga xam ne euh, réewu euh, mystique la euh, nit ñi di ragal cat ak yooyu waaye déjà moom il est dans les habits de de président ñu ne ñu koy wooyee madame la première dame ak yooyu xam nga yooyu tamit moom itamit mu mel ku ko xaw a gëmaale dox ak moom donc euh, ñaari sujet yooyu euh, laa bëggoon euh, sa xalaat vite fait ñu doon ndax émission bi daanaka jeex gis temps baa ngi dem te xale yi war nañu ñëw mais abu cabaxal na sànq benn wax wax na fi ay waxu report report élection jamono ji nga xam ne am na ñeneen ñuy wax tamit ne boycott aussi am na ay parti yu mel ne Pastef bi nga xam ne xeetu boycott la ñuy def ak yu mel noonu ko euh, kilifa gi Konté sëñ Konté waxee ak abu ko relance bobu rek lay foofu rek lay taxaw parce que ñun déjà dañu am benn problème ak euh, c'est-à-dire li ñu dévoyé dafa bari dañu dévoyé yu bari commencé ci ko xamante par souci d'intention ñu né par exemple kii mën na falu nit ñi di woyé soxnam benn titre bo xamante yellow ko mais nak jogé wul foofu dafa xam nga le président Ousmane Sonko il est président rien du tout c'est ça la logique président Bougane Gueye Bougane n'est président rien du tout il peut être PDG d'une société mais le titre de président ça revient à titre par le suffrage universel mm-hmm. voilà par voie de concours voilà par nomination voilà etc. etc. Mm-hmm. président des cours et tribunaux président etc. etc etc mais on appelle tout le monde président hmm. da ngay ah, mouvement les ce tour mu dañ ciy boole président mu mel ne ko wax c'est une ah, insubordination dans les rangs dans les rangs politiques Voilà peut-être dans les rangs du syndicalisme ah, boo ko waxul sax mhm. yow da ngay nekk yow ki nga xamante ne yow y génn gàmm gamme. Boy mhm. far ci par exemple bokk gis-gis te dois wax président Pape Diop tu es mal vu en coulisse gomme le président wax parce que ci touram lay jaar ndax dañ ko ci bi nga ci jikko dañuy bañ di lañ ko intention bu bi waral première dame ñu euh, Bili euh, madame Aïssatou Biliba, je pense c'est ça sa borom kër tan nañ ko rek nit ñi daw première dame ba mu yow maintenant limi muy rek moy relation biñ am abu ñun mm. ak celui qui a le plus de bien mm. wala celui qui a le plus de pouvoir ñun relation bobu moy suñu moy moo moy problème bi xam nga ngi joxe exemple la délégation et le fétichisme politique de Pierre Bourdieu pour dire quoi pour dire juste que né xam nga les délégataires de pouvoir ak sa personne qu'on délègue le pouvoir mm. dafa jël le sens contraire dafa dem ba melni yow miñ denk pouvoir bi nga xamné yow amu pouvoir yow tu es délégataire dañ laa dénk il mel ne yow dañuy dem ba yow qui am pouvoir ñi la pouvoir pouvoir bi nga yor am mu pouvoir Il y sa loxo Amadou Ba pouvoir candidat mais il n'est pas le candidat de sa famille ni de sa femme. c'est important maintenant si on nit ñi par observation gis maintenant les membres de ta famille ils ont di qu'importe

kenn rek laa mës a gis ku bind ci la première dame de Wade du je vais pas citer l'auteur parce que je peux ju juger que ne le livre que j'ai lu qui m'a le plus dégoûté dans la vie mooy mooy livre boobu mooy la femme du démon pour faire pour pointer du doigt madame Viviane Wade mooy livre boobu moom moom dama ko citer rek ndax li nga wax moo tax mais du ma bëgg sax di ko di ko di ko tudd moo tax je ne cite pas l'auteur maintenant culture bi ñu am ci première dame mooy porte d'accès aux bien, sans sans méritocratie waaw maanaam man munuma ku mënul jot ci mag sohna di nga jot ci soxna si nga xamante ne li ñuy naan waxtaan ak sa njegenaay njegenaay bi du woon njegenaay en tant que tel njegenaay baat bi jege la jege jege mo judd ci baat bi du oreiller bi bi indi déedéet ba baka wolof di wax jegenaay mooy ki nga xamante ci moom ngay jegenu waaw daf fly jege ba boo di gudi. mooy wéeri sa kaw mbaa nga wéeru ci kawam loolu mooy indi baatu njegenaay bi donc loolu bu ñu koy wax rek sa soxna moo tax wala say soxna ñoo tax moo tax nag comme la culture boobu la ñu am nit ñi dañuy daw di jege ngir la la nga xamante ne c'est protocolaire de l'autre côté nga xamante ne pour nga toog ak président dafa jafe pour nga jaar ci gis le ministre dafa jafe première dame nag moom day mën wax ak la président ne ko kat am nga mbooloo yoo xamante ne amuñu ossature politique amuñu nangam waaye nit ñu ne bëgg lañ wala mën nañ lii wala def nañ li ngir yow wala nangam wala nangam wala nangam wa ba pare en général suñu réew yi ñun Afrique les premières dames font office d'enquêteur mm-hmm. dañuy mën a percer loo xamante ne protocolairement le président du ko mëna santané mon première dame bi da koy mën légui nak nit ñi nak en général buñ démé fenn ba fofa ñu sentir né fofa mi ngi mi ngi mi ngi jeex dañuy wat sen panne daw demaat fenen di fa tatani wax nga ko sank su li ñaari erreur yo xamantene ne abu man je pensais que première bi ñoo ko bokkandoo xalaat bi ma ñu tuddé Amadou Ba làmb demul je me suis dit que il a voulu corriger l'erreur de de sa femme en ci ci yëf yi tambalé parce que aussi j'ai connaissance de beaucoup de chanteurs yu siw am doole ko xamantene dawna génné ay tube wala ben tube def ko ci ay clé ñeu indil soxna ci je suis au courant de ça gis naa ne yooyu dawagul xëy na kon am na loo xamante ne jéemoon nañ ko maîtriser au début mais mi ngi ëpp loxo la preuve bu fekkee yow sa soxna ñëw na taxaw yëkkati ay ay parrainage teg ci table ji nga taxaw mu taxaw ñaar lay symboliser sëñ Konté benn bi sénégalais bi xool danaan ah soxnaam di génn na taxaw elle se met elle elle elle elle maanaam elle revêt automatiquement maanaam. Euh, la tenue de première dame c'est-à-dire elle veut s'imposer ci kanamu sénégalais effectivement c'est ça. beneen bi ñi nga xamante ci parti de l'élite intellectuelle bi lay mais dañ lay sori parce que c'est une mauvaise carte postale. très mauvaise carte postale parce que sans ci titre bu njëkk bi xëy na dinañ ci affaire li taxoon ma doon wax ci affaire li tax ma jàmbal bind ci moom dafa jublu may ko may ko effectivement parce que tout le monde sait que Abou un produit il devient une marchandise que s'il est utile. Si le produit n'est pas utile, mais il ne peut pas devenir une marchandise. cest à c'est dans le système d'échange. Ils sont délégataires du pouvoir. Plus, ils reculer. Mais si fallait encore, si nous fallait duñ fal Amadou Ba mais c'est cette dame qu'on va mettre dans le pouvoir. et mhm. puis la dynastie familiale encore. Les nag ils ont ils ont ils ont cette peur bleue. Mhm. y a encore cinq dynastie mhm. le cerveau ne connaît pas la négation vous avez absolument raison Nini ñi a nañ ils ont peur de ça. man ñaari politiciens laa mën a m'a sama baaraam ne nañ ci ki ben bi c'est un petit peu pardonnable. Moi, quand les femmes de Sonko sont sorties lolu c'est impardonnable en politique parce que li mu ko yàqal moo ëpp li la relation entre les politiques et la famille sociologiquement buñ ko table di ko ci la nit ñi di comprendre né lolu c'est c'est en défaveur ci ki nga xamantene tay mom ñom mo moo ñom ñu jog di wax la deuxième moy li dal Amadou Ba ñé dañu genn ñan ñek qui mhm. dafa mel ne tamit dafay ñaan njëkk mhm ñoo bokk ñoo bokk ricochet waaw dafay ñaan njëkk mais nag ah, kan lay defal clin d'œil est-ce que la famille proche et élargie de Amadou Ba sont contre sa candidature mu ne xaaral mu en tant que premier en tant que ah, ah, soxnaam pour wax leen ne leen bu dee yéen a ngi dégg ne jàppale wu ma sama jëkkër wala bu dee ngi seetaan ñeneen ñi jàppale wuñ seen seen au-delà du du Sénégal et des populations nit mokam vous vous souvenez net de ko bandum sans le dire ci làkk bi mi lac bu man xamoon lu ma ko lu wolof ak français xeyna na war na dégg mais c'est une manière de dire aussi famille bi jóg leen ngeen parce que man sumuna xex bi ba bu ëllëgee su féké ndam amna je ne serai pas une première dame bu kenn nan bu mu am poste wala bu mu am nangam bu dafa jang wala bu mu nekk sàngam wala bu mu nekk y mm-hmm. a une légitimité pour mu texte table ensuite les sondages sont assez défavorables film ma koy tu nous koy c'est ça la vérité ah, ah oui il y a un sondage la le sondage un sénégalais yi nga xamante ne boo ñi bëgg changement mm-hmm. qu'importe la personne et son nom ils veulent qu'après ces 12 ans qu'il y ait un autre régime bo len laaje lutax ñu ne parce que lool sax day safara manam day am lu wacc jaan bi day wacc sama sun waaw nañ nañ nañ lenen lenen su baxulit ñu xol nuñ ko lijeenté ya un type de sénégalais bo xamantene ne lañ wax la euh, sondage populaire lool dafa taxaw benen bi aussi muy sondage bi nga xamantene so xolé ñi daw si ñepp pour tay jappalé Amadou Ba wax naa la ko kéro ñu ci bokku ñu sax benno bokku yaakar dañ dan tok rek nek des lampistes di xalamal Macky Sall ak nguuram biñ démé ba xamné ne mi ngi bëgg ñu ne léegi nañ dem ci ci ci ci Amadou Ba et rien n'est sûr que bu fekkoon Macky tànnul Amadou Ba est-ce que kamaki di tànn ñoom danañ fa dem mm-hmm. ken amu ci ben ken amu ci garantie donc tay bo xolé sondage yooyu mu tégué nga gis tay le parti ex-Pastef dina ko wax donte bat bi neexuma ni mu joggé parrain yi ni mu baree ak les gens comportement am mais l'autre c'est un sondage pur et clair que les sénégalais yii di def c'est pas que ils aiment Sonko ou autre mais ils veulent en finir avec ce régime qui est là c'est ça la bonne lecture donc loolu yëpp bu aller à Amadou lan moo xew mu war am ne ko abu waxee Sank. Mm. ce qui semble paraître mooy les gens l'entourent parce que il y a y a le fric entre guillemets bu Amadou wax nga ko sank des influenceurs yo xamantene genn nañ lu warutoon a génn té lol moy la faille bi meussa bi top Macky Sall ba top Amadou Ba ci deux exemples Ben, bo fàttali Covid bi sénégalais dañ ko absorber. woon xam nga lan mo indi l'élément déclencheur bi tax ñu vomir les les mesures barrières moy dañu xey ñu wan ñu le président Macky Sall toog ak ay domam ñuy joué Lido. Mm. si vous vous rappelez par contre à l'époque man j'avais fait un article ma pourtant yalla en tant que père de famille il pouvait di rombo gis ñaari domi di en tant que père et il a jamais leur temps mu ne tok pour pour pour ñeu tok la eh mu démé lu xew lu ngeen di papa mu taxaw na minute la mais ñi ñi def propagande bi image parce que c'était pas une image à montrer parce que quand tu connais la sociologie sénégalaise nit ñi bu nga say doom di lu mais loolu ça devient problématique euh, problème communication boobu moom feeñaat fii mm-hmm. ab kilifa diine bu mag di la ziar si loolu daraan daraan daraan nekk lu lu lu nëbbu waaw lu nëbbu lool sax ñu ne ko fang ñu bëri ci la nga xam ne Amadou Ba bi muy ubbi kër kër gi mu gi mu ubbi ci ascenseur le génne mm-hmm. maintenant les gens vont se poser la question ascenseur kër gu am ascenseur ñaata niveau la fan la lan ak lan donc s'il y a ascenseur certainement il y a piscine s'il y a piscine certainement il y a il y a des pans il y a des et cetera et cetera et cetera et cetera mais Amadou n'avait pas besoin de ça et man je suis convaincu que ne bi affaire bi siwee na naqari mais c'était trop tard car Moustapha sisselo est et nico andal ils ont commis l'erreur c'est ñu wara avons un journaliste attitré ñu avons un influenceur mu indi mu indi tolé je me rappelle Bamba si si cassé. génnoon na ci wax et tout ñu gàcceel ñi nga xamante ne dem ak tas c'était leur rôle maintenant nak, li xew donc ce chiffre de 3 millions pour résumer Aïssatou Ben, spectre noir lay donne encore pour le pouvoir Dalon na il l'a déclaré deux fois chez Cheikh Becho, fille à Mermoz. Il a déclaré 1,5 million à la place de l'obélix. C'était le 23 janvier, il a le meeting de la paix. Il a dit les colombes. Donc, si calculer le ratio, avec de élection, il a eu 34% deux fois. Première fois, eu plus de 0, que deuxième fois. 900 000 voix qui le stagné. Allez comme retour, ça veut dire quoi où sont les 2 millions 100 000 et quelques personnes qui, qui, qui, qui, qui se levaient et qui venaient, parrain intention de vote la entre guillemets mën na na ko jàppee intention de vote mais qui parrainé des Rousse Abou Diallo parce que Benno la bok, buggul Benno, waaye Mbokom la te que signé bi bu naree tas de da koy signé ne pas parce que parce que ça Mbok la waaye nag ca mbañ gàcce ga nga xamante ne yow ak sa borom la foofu nag Abou Diallo newu fa mën ngaa dugal ab xob jox ko nag ka nga waa ah, kon kon kon nag soxna Amadou moom na réarticuler lu mu gën a gaawee te génn ci système bii parce que système bii moom baaxul